asalaamaaleykum waaw man la Pape Momar Ngom candidat Yewwi Askan Wi bu Ngogom waaw euh, dañu am rek benn déclaration bëgg nañ ko def ndax lu ñaaw li nga xam ne xew na euh, fii tey ci Bambey waaw ñu bëggoon rek euh, leeral pour informer nit ñi pour ñu xam ni xew ndax tey ñu dañu amoon invitation bi nga xam dañ ko waroon def benn émission bi nga xam ne euh, local la tudd suñu local euh, si gox bi FM nga xam ne émission la bi nga xam ne dañuy invité candidat yi benn par benn commune si nekk si commune ak si département bi ñu développer seen programme pour askan bi mën a xam ku si nekk lan nga lan nga bëgg a teg si table bi pour que askan bi mën a leen doy nga xam ne teg na lu lu dal seen xel pour que ñoom ñu mën a ànd ak moom euh, votel ko waaw bi ñu ñëwee nag émission bi programmé nañ ko bu yàgg ba bis bi jot tey euh, tey si vingt heures samedi 25 euh, décembre si 20 heures ñu ñëw commencé émission bi wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax Babacar le directeur de de de de gox bi FM ak Fall bi nga xam ne moo doon moo doon animé émission bi si seen professionnalisme ak seen bëgg liggéey seen xam liggéey ak seen équité waaw bi nga xam ne won nañu ko si diir bu gàtt bi nga xam ne kii nañu kii nañu ak ñoom. Euh, yàlla def bi ñu commencé émission bi euh, wax dëgg yàlla saa si jaar na yoon trop parce que euh, waxtaan nañu si si njëkk ak teraanga ñuy laaj ñu ñuy tontu ñuy laaj ñuy tontu bi ñu demee ba si digg bi nag lu waral ay vingt minutes wala am na Mor ministre Mor Ngom nga xam ne mooy le maire de Ndangalma euh, yónnee fa ay nit biñ ñëwee ñu ne dañu arrêté émission bi euh, bi biñ ko waxee directeur bi bañ ak animateur bi continuer émission ñëw dugg ñu fekk ñu ba si biir salle bi euh, dugg ubbi bunt bi nga xam ne salle salle studio bi nga xam ne fa lañ nekk def émission fekk ñu foofu ñëw ba si animateur bi nekkoon arrêté animateur bi bañ ñu continuer suñu émission ñu génn couper courant bi. ñu génn coupé courant rajo bi yëpp émission bi arrêté ñu génn waa rajo bi ak nga xam ne ñoo doon jël image yi eh, ne nañu def déclaration pour leeral li xew ñu taxaw si cour bi di def déclaration ñu fekk ñu foofu nañu euh, nañu génn génn ñu si si si si rajo bi ñu génn si rajo bi eh, dem ci lañ nag ñëw Euh, def bëgg nañu képp nga xam ne mu ngi doon déglu émission parce que boobu ak léegi ku nekk ñu woote di wax li xew ñi nga xam ne xamuñu lu xew ñu ngi defe ne courant moo coupé wante leeral bi mooy courant bi coupé wul Mor Ngom moo yebal ay nit euh, ñu coupé courant bi parce que émission bi arrangé wu leen. waaw euh, fu mu nekk nii ñun li ñu doon wax rek mooy li ñu réalisé si département de Bambey de façon générale muy si wàllu électrification la ñu tàmbali woon. di xamal askan wi lii nga xam ne am na si développement courant si seneg si si commune Ngogom ak si département de Bambey e, ginnaaw yàlla ñun ñoo ko fi def mu neex leen mu naqari leen te ñoom xam nañ ko Mor Ngom boobu xam na nu mu demee. xam na nu mu demee fekk na lépp parce que li ma wax si émission bi xam naa loolu moo ko neexul parce que xam na ne bëggoon naa gën a développé su ma gën a nit ñi dinañ xam ne moom euh, voilà moom taxawu askan bi taxaw ko jóg loolu nag moo ko moo ko moo ko tiital moo tax mu ñëw mu ñëw coupé émission wante nag day day nax boppam rek parce que ñun euh, am nañu occasion wu bëri di fu ñu mën a jaar pour mën a leeral askan bi si dinañ leeral askan bi nag askan bi il faut ñu leeralal leen ñu xam bu ñuy tànn xam li ñuy tànn parce que aussi naxaate bi dafa yàgg dafa dañu dafa métti ay nit ñu nga xam ne ñoom seen intérêt personnel moo leen tax a jóg parce que li xew nii rek wane na ko mooy wane ni ñoom seen intérêt personnel moo leen tax a jóg mais lu soxali askan bi taxu leen a jóg population Ngogom population de bambee nag moom laa bëgg ñoom ñu yeewu xam ne ñii nga xam ne dañuy ñëw di leen nax lañ leen xàmmee xam nag ne changement bi nga xam dañ ko war a def tànn eh, candidat yi nga xam ne ñoom ñoo leen amal njëriñ nañ ko def exemple bii ñii wane nii rek moom mooy wane na ñoom euh, seen bopp rek lañ gëm seen bopp lañ gëm kon dañ ñëwoon rek nañu leeral askan wi parce que courant bi lañ doon wax rek mais bëggoon nañ dugg si leneen li nga xam ne incha allah bi bu ñu yeneen émission yi nga dinañ ko def fii si Bambey FM ñuy waxee nii dinañ leeral euh, li ñu def si ngoogom li ñu def si si si bi exemple yu ma si joxe rek seem bu ngoogom bu amee ngoog ñun ñoo ko fa def case des tout petits bi bu amee ñun nag boo demee ba Dingiraay kër ma jëmb Dingiraay kër ma jëmb tëli boobu noonu ñun ñoo ko fa def ak électrification dëkk yooyu yëpp nga dugg biir Lambaye dëkk yu bëri nga xam ne ñun ñoo ko fa def te biñ ko fiy def parce que rek dañoo jàpp ne ñun Bambey lañ dëkk dañu war a suqali bokk si ñuy suqali Bambey léegi nag population yooyu nga xam ne ñun ñooy lañ defaloon population yi ñoo ñëw nag topp ñu topp ñu ànd ak ñun ñëw ne nañu bëgg dañu bëgg changement léegi nag loolu nag moom leen moo leen métti moo leen tiital ñi nga xam ne dañ fi def ay vingt ans ñi nga xam ne kenn xamu leen mosu ñoo defal dara euh, commune bi wala département bi seen bopp lañ fi nekkal léegi population yi ñoo commencé yeewu xam ne ñii dañ leen abandonné dañu leen utiliser di leen exploité loolu nag xam naa ne moo leen métti directeur bi bi ñëwee wax nañu lu leer wax nañu ne depuis si suba ñu ngi koy teg pression pour mu bañ a invité Pape Momar Ngom euh, mu moom moom en tant que professionnel bañ ne moom émission da koy def ñoom nag ñu passé à la vitesse supérieure mooy ñëw couper couper couper courant bi donc arrête émission bi mu nekk lu ñuy ñaawlu ñaawlu trop trop trop trop trop trop parce que defoon nañu Sénégal euh, lii lii dépassé nañ ko depuis bu yàgg-yàgg war na am 30 ans defoon nañ ne journalistes yi dinañ leen bàyyi ñu def seen liggéey wax dëgg yàlla gàcce ngalaam journalistes yi wante leader yi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne ñoom dañu am doole si si si dëkk bi ñoo mayul journaliste ñu def seen liggéey mu nekk nag lu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw te lii yaakaar naa euh, waa CORED nga xam ne euh, ñoo ñoo ñoo ñoo njaboote journaliste yi lii war nañ ko yëg xam ne euh, ñi ngi ñi ngi bundaxatal ay journaliste fii si Sénégal pour ñu bañ a def émission parce que waxuñu lu leen arrangé bu ñu waxul lu leen arrangé ñu coupé dagg émission bi ndax ñun liñ fa doon wax euh, dëgg kese lañ fa doon wax waxuñu fa inventé wuñu fa sosuñu fa euh, yokkuñu fa wàññiwuñu fa li xew rek lañ doon nettali léegi li xew nag bu fekkee nag moom euh, neexu leen moo xew mooy dëgg mu naqari leen mu neex leen mooy dëgg mais ñëw nag ne nit ki du wax dëgg li xew loolu moom mënul am mënul am fenn te nag yaakaar naa ne jàngat bu am am solo la si nit ñu war a def ndax ñi ngi xamal ni ki ne eh, waa démocratie amul si dëkk bi ku nekk li la li la arrangé bokk ko boo ko buñ ko gisul daal di jaxase te nag nañ xam ne nag Sénégal moom moomu ñu ko ngoogam moomuñu ko Bambey moomuñu ko bu ñu jàppee ne dañu am doole ba ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy tëj suñu gémmiñ ñu ngi nax seen bopp ñu nax seen bopp nante liñ si méttitlu rek moom mooy defoon nañu ñun lii dépassé nañ ko dépassé nañ ko te nag élection lañ jëm war a wax ak population yi ku nekk ñëw wax li nga bëgg ci population yi lan nga dig waa population yi lan nga mën a def ci population yi ñun ñëwaguñu woon sax suñu programme ci programme bi nga xam ne moom la ñu wax waa Ngogom moom lañ moom la ñu war a war a war a dérouler bu ñu yàlla dimbalee ba jël mairie bi muy programme am am solo nga xam ñu ngi ko tuddee PSN 2030 muy plan suqali Ngogom 2030 muy programme bi nga xam ne si huit ans lañ ko lañ koy déroulé estimé ko si quarante projets yi nga xam ne huit milliards lañ koy lañ koy lañ koy réaliser mu nekk projet bi nga xam ne plan bi nga xam ne pare nañ pour dérouler ko ndax partenaires yi nga xam ne pare nañ pour jàppale ñu su programme boobu taxaw nañu duñu xaar ba ñu am rek signature commune bi am am am kaddu commune bi jotaguñu woon sax dugg si programme boobu ñu ngi woon rek si bilan bi nga xam ne moom lañ def Euh, bu ñu waxee bilan nag xam naa ne loolu dina leen jaaxal te loolu bokk na si li leen métti ndax ñun amuñu fi benn ndomba tànk mais bu ñu sañee ne dañuy def bilan ah mu dafa fekk ne rek dañ fay def dara loolu ñu fi def nag moo leen métti parce que mu fekkee ñoom ay responsable am ay nekk ay kilifa yor ay ndomba tànk si dëkk bi te mënuñoo def bilan bi nga xam ne ñun def nañ ko fi loolu dina leen métti wante nag dañu war a nag nekk démocrate yaakaaroon nañ ne ay démocrate la ñu sëkkal nga xam ne dañuy xool ku nekk bàyyi ko mu wax lu mu war a wax def lu mu war a def bàyyi population ñu tànnal seen bopp mais di lii nii mooy bëgg mooy wane ne ñoom dañu bëgg forcer population yi ñu tànn ñoom ki ñu bëgg te ñoom loolu neexul population yi ñoom loolu lañ bëgg wante yaakaar naa ne population yi fu ne nii yeewu nañu yàgg nañ leen nax di leen di leen manipuler di jël di leen def coalition Yewwi Askan Wi yeewu leen yee leen département de Bambey yi dafa am solo bi yeewu ñu yeewu leen moom moo tax ñu ñëw présenté wu pour yooyu askan wi yoroon te askan wi fi mu nekk nii moom gëm nañ ko xam nañu ne seen seen seen yaakaar ci candidat coalition yooyu askan bi la. moom nag mooy loolu nag moom mënuñu si dara loolu population yi ko tànn ba pare dañuy sonn tëj rajo loolu dafa naa ne dëkk yi nga xam ne dictature moo am sax loolu amatu fa amatu fa mais fekkee nag deux mille vingt mi ngi am fii si département de Bambey. ministre de la république xaw ma ndax moom rajo bi xaw ma moom wante rajo journaliste moom presse dañoo war a presse nekk presse bu libre équitable invité nañ ci dimanche passé beneen candidat yi nga xam ne ñun ñoo bokk benn commune ñu bàyyi ko mu wax eh, li mu lu ko neex wax ko développé mu nekk lu am solo amul benn problème keneen aussi bu ñu invité woon yeneen candidats war a bàyyi parce que dama leen di déranger dama leen di déranger parce que ñoom xam nañ xam naa li may wax ñoom xam nañ ko bu baax c' est la stricte vérité ñoom seen bopp xam nañ li ma leen wax moom moo tax bëgg na ma développé c' est dinaa développé nag dinaa gën a développé wax li xew population bi yeewu xam parce que loolu devoir la si ñun devoir la moo ñuy yee population yi informer leen juste et vrai te si loolu lañ lañ nekk te loolu moom mënuñ ñoo dévier si loolu mënuñ ñoo dévier si loolu population ngoogam nag population bambay dama bëgg ñoom lii nga xam ne mi ngi xaw buñ ko bàyyee mooy wane ne ñun dañu bëgg gën a yow suñu bopp parce que lii dictature la te loolu mooy feeñ si lépp si fànn boo duggum domaine boobu noonu lañ koy doxalee kon nag ñoo mën a yow suñu bopp libéré suñu bopp mooy tànn ñi nga xam ne dañu bëgg libéré ñu ànd defar dëkk bi développé Bambey développé Ngogom développé onze communes yi Ngogom yëpp euh, yu département de Bambey bi yëpp loolu moom yaakaar naa ne population bi lañ bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ku leen bëggatu woon nax lii woon na leen dañ leen doon nax ay nax kese kese kese ay intérêt personnel imposé nit ñi li nga xam ne ñoom du seen choix te loolu moom yaakaar naa ne eh, ku nekk dina jël décision boppam loolu moom eh, mbajum mbajum kanam moom borom moo koy fajal boppam lii moom dañ noon rek ñooy fajul suñu bopp population ñooy fajul suñu bopp kon nag eh, ñu ñu ñu wàcc suñu kaddu di wax rek euh, ñu ngi sant ñëpp